Rafaahi TV ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaaro waa association ak mbootaay bi lëkkale waa Guédé Bousso te ñu tuddee ko fédération bi nga xamee ne moom mooy fédération ànd jàppalante nga xamee ne ay soxna yoo xam ne nii yu responsable lañ yoo xam ne nii toll nañ ci lu toll ci cinq cent personnes ñoom ñoo fi ñëwaat di santaat yàlla bu baax a baax di julli ci yonenteem bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Cheikhul Khadim bu baax a baax a baax waaye di sant sunu yaakaar ki nga xam ne moo fi nekkal Cheikhul Khadim di Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér. <clears throat> waa association bi ñooy sant bu baax a baax ci bis bu tedd boo xam ne nii jàll nañ ko mu nekk bis boo xam ne nii bis bu bis la woon boo xam ne nii lañ ca jublu woon mooy eh, jàngale. ak it maanaam euh, fàttale te ci seen biir bis bi nag mu nekk bis boo xam ne nii jàll na la treize avril bi jàll la woon mu tombeek laylatul xadri mu nekk bis boo xam ne nii bis bu nu rafetlu la lool ci seen taxawaay yi nga xamee ne ñoom soxna yu tedd yi defoon nañ ko association bi nag di jël kàddu ngir leeral ak sant ñi nga xamee ne ñoom danoo jàpp bu baax a baax a baax ci bis bi. ñu tàmbalee ko ci kilifa yu tedd yi nga xamee ne ñoom dañoo budul woon ak ñoom bis bi du am ngir seenu taxawaay bu rafet bi nga xamee ne def nañ ko. ñooñu nag euh, mën nañ ci jiital Serigne Omar Bousso mi nga xamee ne moom mooy xalifab Gede bi. ci taxawaay bu sell bi nga xamee ne taxaw na ko ci jëm ci association bi ngir xam gën xam ne maanaam association bi ak njabootam lañ tax na lépp lum ci mën a def def na ko ci. moo tax waa association bi ñoo ngi koy sant bu baax a baax a baax ci taxawaayam bu sell boobu naka noone it ñu ngi sant sëriñ Alxaaji Ñanga Buso ak sëriñ Fallu Buso Moxtaar ak sëriñ Cheikh Assane Buso ak sëriñ Serif Buso Ahmadou Assane. ak sëriñ Fallou Bousso moom sëriñ Ahmadou Assane ak sëriñ Khadim Bousso moom sëriñ Alhaji Ñanga ak sëriñ Salihu Mbacke mom sëriñ Abo Mbacke imam ak sëriñ Jili Maam Say Bousso ak bay Salihu Ndiaye Xewar ak sëriñ Mor Bousso moom sëriñ Makhtar Bousso waaye tamit nag waa fédération bi ñoo ngi sant bu baax a baax a baax ki nga xamee ne moo doon def conférence bi di sëriñ Abdoul Ahad Ñang ci jàppandal gi nga xamee ne jàppandal na ko noonee it la sante bu baax a baax waa daaira sulama sulamul wusul di daaira bi nga xamee ne moo lëkkale sëti sëti sëriñ Mbàkke Buso yi te njiital la sëriñ As Buso ak ñi mu àndaloon ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax waaye tamit nag ñu ngi sant bu baax it waa daaira jaalibatul maraaxib ci njiital sëriñ Xaadim Kebe ci seen taxawaay bi nga xamee ne taxawee nañ ko te rafet lool jëm ci daara ji wala jëm ci fédération bi. Euh, waa fédération bi nag ñoo ngi sant bu baax a baax ñëpp koo xam ne ne képp koo xam ne ni teewoon na fa sëriñ Moustapha Bousso mi nga xamee ne moom mooy imaamu tarawih ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax waa Mbusoo beek waa Mbàkkeeg waa Aafeeg mbooleem ku dëkkee ge de ñëwoon nga ci bis bu tedd boobu waaye nag da cee am ñoo xam ne nag ci biir sant googu faw ñu tudd leen ndax seenub taxawaay bi nga xamee ne taxawee nañ ko mu rafet lool loolu ñu jiital ci sëriñ Abdou Karim Mbacke moom sëriñ Bassirou moom sëriñ Modou sa Dieng sëriñ Abdou Karim waa daaira bi bi ñu jugee wala waa fédération bi bi ñu jugee dem seeti ko këram tuddee ko bis bi mu am ci taxawaay bu rafet rafet boo xam ne ni taxaw na ko ci ndaxte bis ba ba mu jotee da caa yebal sëriñ Moustapha Mbacke mi rakkam moom sëriñ Abdou Karim moom nga xamee ne moom mooy yor moom moom mooy boroom diwlin. diwlin binta nga xamee ne maanaam waa fédération bi ñëpp danoo fas yéene sax moom jël ko di ko di ko di ko far di ko jëfandikoo taxawaayam bi mu taxaw ci eh, jë ci ci bis bi rafetlu nañ ko lool ñu ngi ko ci sant bu baax a baax a baax waaye tamit nag ñi ngi sant yit koo xam ne nii dafa day kenn ci biir njaboot gi di soxna Marème Sall moom Serigne Abo Sall di kenn ci waa dëkk bi waaye waaye waa fédération bi biñ jógee yi yëgal ko seen bis bi mu taxaw ci taxawaay bu rafet rafet moom it ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax ci taxawaayam boobu. ak sëriñ Abdou Salaam Xulle moom it yebal na fi ab délégation bu mag a mag boo xam ne nii ñoom it ñëpp gis nañ leen ñu taxaw ci taxawaay bu am solo lool. naka noonu sëriñ Saalihu Bousso moom sëriñ Abdul Wadoud di directeur cabinet bu Galo Fall wala bu Galo. Euh, Galoba ministre Galoba ñoo ngi koy sant bu baax a baax ci taxawaayam boobu ñëw na ànd ak ay magam ak rakkam ñëw ci ñëw fii ci ñëwin bu rafet rafet naka noonu yit sëriñ Abdou Mbacke Ndaw ñu ngi koy sant bu baax moom it ci taxawaay bi mu taxaw ci bis bi. waaye timit nag ñi ngi sant bu baax a baax a baax ñi nga xamee ne ay kilifa lañ ci ñun di sëriñ Ahmadou Rafaay Mbacke ak sëriñaa sëriñ Abibou Mbacke moom Cheikh Mahamadul Fadal. ñu ngi leen di sant bu baax ci seen taxawaay yu rafet yooyu. kon ci sant googu rek ñu ngi ciy sant bu baax a baax waa daaira Muxaddamatul Xidma ñëw nañ fi euh, ci ab délégation bu am solo ci njiital sëriñ Abdou bu Bousso euh, ci taxawaay bu sell boobee nga xam ne taxaw nañ ko ci. Euh, Massamba Diop mi nga xamee ne moo fi teewal Déthié Fall di mouvement PRP ñu ngi koy sant bu baax a baax moom i ci taxawaayam bi. taxawaayu ndawi Touba yi tamit ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci seen taxawaay kon daal loolu daal mooy li nga xamee ne eh, ñu ngi ci xam ñu ngi koy xamal ñëpp rek di leen sant bu baax a baax rek sant rek lañ doon def nag sant nag lu am solo la looloo tax jigéen ñi di ko def alxuraan dafa wax ne la in shakartum la azidannakum ne boo leen ma santee ma dolli leen looloo waral ñoom ñuy sant eh, te yoon wi nag daa baaxoo sant rek. moo tax ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm bu baax ci mboolem képp koo xam ne ni teew na ci. day mel ne waa fédération bi ci njiital soxna Marème Bousso ànd ak it euh, juróomi maire yoo xam ne ni kenn ku nekk am nga lu toll ci nombre boo xam ne ni bu limu la ci ñi nga xamee ne maanaam ñoom la ñu jiite. nga xam ne day mel ne waa waa Gédé gi yëpp ñoo ci bokk te ñëpp it di ay responsable ñëpp di am di ñoo xam ne ni ay soxna yu mat soxna lañ. waaye tamit nag dëkkee Gédé dëkk fii ci Touba ñooñu nag ñooy sant mboolem képp koo xam ne nii teewoon na ca bis ba ak ku mën a doon nag tudd nañ sa tur wala tudduñ sa tur ñu ngi lay sant bu baax a baax ci taxawaay bii nga taxaw seenu bëgg-bëgg nag du dara lu dul jàppalante te yàlla tax ñu wax na jàppalante te yàlla tax googu nag Euh, liñ koy def wala li nga xamee ne maanaam moom lañ ci bëgg a jublu wala lañ ciy jublu du dara lu dul jàppalante ci sunu biir ba mën a jàppale sunuy borom kër ci taxawaay yeeg yëpp rek. loolu nag wax nañ ne maanaam moom ñu ngi ciy xaar ñëpp maanaam ñëpp lañ ci ibbil seen porte képp ku ñëw. ak koo mën a doon ñu ngi lay ibbil sa porte ñu ngi leen di ibbil sa porte wala ñu ngi leen di ibbil seen porte ngir waxtaan ak yow noo ko bëggee ak foo ko bëggee ñoom dinañ xool bu fekkee ne yàlla rek a tax ñu def ko incha allahu rabbi naka noonee it ñoo ngi santaat bu baax a baax a baax sëriñ euh, Abdourahmane Niang moom it ñëwoon na ci bis ba am ci taxawaay bu am solo ak it euh, sëriñ euh, Mourtada mii nga xamee ne moom moo yor sunu wàllug maanaam jokkoo geeg ak yu demee noonu ci taxawaay bu am solo boobee nga xamee ne mi ngi koy mi ngi koy taxawee kon daal soxna Mareem ak ñi mu àndal ñëpp ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di gërëm ñëpp ci liggéey bu sell bii nga xamee ne liggéey liggéey nañ ko bis bi ku ko gis ku gis bis ba wala ku fa ñëw di nga xam ne ñii mbooloo lañ moo xam ne ni mbooloo mu takku lañ te ànd te loolu moo jafe lool takku àndu waaye ba noppi di responsable nag takku ànd ba noppi di responsable kon nag képp ku leen ci mën a dimbalee ci loole ña la ciy woo ak koo mën a doon nag